Mm-hmm. fekk lañ école bi am. Mm-hmm. te pourtant yàlla ngi woon ne affaire bi su amee yokkute. Mm-hmm. lu mat soixante quinze pour cent. ci diiru ñaari at ci yéen ko. suñu borom di jaaree. même su nekk doon lu bees tiim. yàlla dina leen xëntal ngeen créé leneen loo xamante ni ci la ci la ñuy ni moom 84. effectivement moom moom moom moo juddoo ko. waaw waaw boobu boobu juddoo di di di créé daal. bëri na ñoo xamante ni. seen way jur yu jigéen fa lañ jaar bu mokkal alxuraan léegi seen ay doom ñoo fa nekk am ñoo xam ne seen ay sët ñoom ñoo fa nekk mhm. te loolu dafa am solo mhm. léegi nag liggéey bi ngeen ci def moo tax am na ñoo xam ne même xale yi tey buñ demee ba nar a def programme bi te yéen ñëw leen ñoom dañuy tay wallaay moo tax boo xoolee ñaari at yii ñëw xale yi dañu sensibiliser seen autisme donc mhm. dañu sensibiliser seen lépp lu ñu doon def même def na ko seen muraay sax dañ ko sens ko soo waxee ñu ne adduna bi yëpp ñoo ñuy seetaan effectivement te boo xoolee depuis boobu léegi mosu leen ñu laaj dañu tënk. saa yu ñu waxee nga ne yéen ci kër gi ngeen bokk. Mhm. mais nag euh, su fekkee yàlla bi nga xam ne moo doon mayee ba léegi nii. Mhm. gëm naa ne si lu borom bi tabaaraka wa taala mhm. man de lépp lu sëriñ bi wax gëm naa mais sëriñ bi ne la gis na leen fu sori. te ñun ñu ngi ñaan yàlla fu sori foofu la ñu bañ a kon temps amul. te ñu ngi ànd ak gi. waaw waaw waaw baatu kilifa gi. waaw eh, fi mu nekk. ñun ñoo fa jógee ko ñëw Dakar moom mu dem fa. sëriñ bi tegale ko fa ba keneen keneen mu ko koy jëlee. dëgg la keneen mu ñëwoon rek ne day ñëw indi ay kàddu cant. ay uh-huh, kàddu gërëm. Uh-huh. macha allah bàyyi ko bu tëdd ma seedeel a gisante ba saa. Mm-hmm. dëgg la ñu a gisante ba saa. Mm-hmm. Mm-hmm. a euh, lépp lu nga xam ne mos ko soxla. lenn lenn loo xam ne dëgg. parfois dama koy topp trois jours waxal su ma waxee rek mu ut benn loolu dafa am solo. te tey boo xoolee déplacement bi bu fekkoon ne xaalis moo ko def. bu yoo xam ne ci def bu mhm. bëree bëri bëri moom nga xam ne euh, man maay comité bi alhamdulilah waaye ngeen xam ne rek alxuraan la ñuy jibal mhm. te alxuraan moom naka jekk doole mostu mostu kawe maanaam ci ndànk lay jógee mhm. dem nam da nam dale woon nag jamono bii ci loolu lañ toll ndax am na tey site yoo xam ne wala naroon a jëlee fii yóbbu leen gàm bi gratuit. dëgg la métti de. dëgg la waaye nag léegi loolu yëpp ko indi mooy tumuraanke yi mhm. ne ñu nekk ndax yonent bi noonu la badal islaamu gariban wa sayaudu gariban waaye ba tuubaa lil ghurabaa mhm. kon ñi ci ñi tumuraanke ñooñu nag yéen ngeen ànd ci ñoom ci tumuraanke gi wan ñu ne ñun alquran la ñu liggéey liggéey lañu. Mhm. Bachir laaj naa ko mosoon ma waxal DG ne ko nañu wax ñaata lañ leen di fay pour gars yi ndax bëgguñ ñu ñëw ñu ngi yëkkati loo xam ne di leen ko jox loo xam ne du leen arrangé. Mhm. te ñun amuñu doole boo xam ne dinañ ko dinañ leen fay normal. Mhm. bi mu jokkoo gars yi ñu ne ko loolu moom amul problème. moom woo na ma mu ne ma waaye nangu maa wax dara parce que nee na ñoom ci kër gi lañ bokk. Mhm. ñoom ñu ngi loo xam ne dafa ñu oustaz ñun loolu ñu boole foog ma sax DG mhm. eh, ñu ngi la naan te effectivement bi ñu noonu la mhm. mhm. ci jëf lu mu tuuti tuuti bàyyi xel da nga da nga da nga fayu fii boo liggéey ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf noonu yow nit ki na nga fexe xam ne ni da ngay da nekk borom xam-xam ko mu ne demal nga jàng mhm. mënuloo ko mu ne kon dana déglu kuy jàng mënuloo ko mu ne kon soppal ki jàng waaye mu nekk juróomi urdu aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban wala takunil xaamisa fa taxla te nag nit ki dara boo bëggul mënoo ci def dara dara ji bëgguloo doo ci doo ci a perte sa benn temps waxuma laa ngi ciy jël sa sa mhm. dara ji ko ci def mhm. kon ñun xam nañ ne bëgg ñu ngeen bëgg alxuraan moo xam ngeen di def loolu noonu. léegi nag loolu noonu moom faw ñu seedeel leen ñun suñu kontaan bi ci mm. xam nañ ne ah, liggéey bi gannaaw ñu ngi dem bu soobee ci gis résultat incha allah incha parce que waxuma alxuraan li ngeen defal waaye kilifa gi moom nee na kontaan te bu kontaanee ñaan rek yàlla mun naa yéen yëpp su ko defee loolu nag kon ñu ci siècle mm-hmm. moom ñun niñ ñëwee mm-hmm. moom noonu la bëggoon a ñëwee waaye jotam moo ko may moo tax mu ebal moom ma ñëw mm-hmm. ànd ak Bachir nii nga xam ne wax dëgg yàlla mooy mooy tànkam fii ci fii ci Dakar comme ñun niñ ko nekkee fële si Gambie su ko defee kon gannaaw ñun ñëw nañ rek mel na ni moom moo fi teew waaw donte mënu ñëwee wax li mu li a wax bu ñëwee wala mënu ñëw jinj bi ñu leen di rek war na leen di doy moom ma ñëw tamit noonu lay def su ko defee kon ñu mel ni ñaanal yàlla fi leen bëgg kër gi egg yéen ñii na ko xam yàlla am na ko yàlla na leen ko yàlla defal kenn ku nekk ci yéen seen liggéey fi ngeen bëgg mu egg fa yàlla na ko fa yàlla yeggal ci barke alquranul karim wax dëgg yàlla kontaan nañ lool kontaan nañ baax macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilah waaw ah, kon ñu ngi tuub si tee bi gàtt bu def âgé amoo waaw man moom euh, sëriñ bi man. mais amuñu chance lii la namoon président ñu gisee. nag yàlla dafa def. Mm-hmm. bi ñuy teg kër gi. Mm-hmm. dañu nekk si dëkk diine bu xam tàmbali xam ne dëkk diine. Mm-hmm. suñu première politique moo nekkoon ni diine. ñu si laaj gërëm. mu nekk jaare bi nag. Mm-hmm. parce que doomu xalif bi. Mm-hmm. muy Seydina Laay nga xam ne ràññee ko fi télé bi. Mm-hmm. moom moo ko inauguré. ñu tënkul moom kàddu kàddu kàddu góor mais également kàddu diine. wax ko ni ko lépp lu jëm ci wàllu diine. ñun duñ ci laaj kenn taal ak fu mu mënti doon. dañuy dem jaayante yi ci am jël. parce que dañu diine mooy njëkk mooy mujj. te amaana yéen li ngeen di def. maanaam fépp foo leen di jaar si kaw suuf dañ leen waroon laral tapis rouge maanaam tijji boppu xale def si xam-xam rawatina alxuraan li muy def mu gëm ko te fierté la également tey liggéey bi ñuy bi lu di ñëw di def am na lu mu yokk man dal naa ne li ngeen def aussi liggéey liggéey nañ ak ku ne ku leen mm-hmm. yu bëri ñu ngi daw mm-hmm. ñoo koy defar te amaana man na ni liggéey la liggéey la rek ku nekk def mais reconnaissance bi mhm. man ma ma jàpp ni ñu ngi koy soog a am waaw nit ñu ñëw ba tey taxaw daal ni ah li ngeen di contribuer kat mhm. ñun am na benn lu muy def si par rapport ak mhm. événement yi muy def donc loolu sant yàlla et aussi xale yi ngeen wax nii donc ay ndaw la mais ay ndaw yu bëgg bëgg seen bopp la xam également li leen tax a jóg parce que man sama premier objectif. man am na ay activités professionnelles yu may dimbali macha allah. mais fii bi ma koy teg dama ne. tey il faut xale yi nga xam ne ñi ngi si dëkk bi amul mbéy. jéem leen indi fii formé ba lépp loo xamante ni seen moroom technicien da koy man ñu man te tey tamit loolu yàlla may na ma si ndam. Mm-hmm. parce que ñu bëri bu fi ñëw. ñu am mm-hmm. yenn notion yi bu ñuy dem tamit. Mm-hmm. wala ñu ba ñu fiy nekkee. yàlla dina leen dimbali dara dootu leen si wàllu audio visuel donc sant yàlla. may wax ni rek li ngeen def aussi déplacement bi mënoon ngeen woote rek téléphone comme ni ngeen ko defee. mais di sant yàlla la parce que man daf ma gën a rendre fier. léegi nii laa fi yéen même pas quelques minutes dama aajoo wax ni ma da ngeen ñëw. mais bëggoon nañ aussi dalalee leen neneen parce que lii dafa rëy. te te di ko sant yàlla. parce que lii lépp su amee aussi. ñu jógee de dëkk dëkk. pays en pays. parce que moom mii am na juróom bu mu si rek. parce que gis nga doomu aadama bi. man de sama philosophie lool lépp loo ma jaay lu dul taalibe sax moom. dem naa fu ne gisi man mooy nga jaay ma taalibe. mooy nga wan ma ni taalibe nag du leen lu mooy nga nite. ma lay seedeel ni nga jottali ko ko sëriñ bi ndawam mi mu bàyyi Dakar ku mm-hmm. mat ndaw la mm-hmm. parce que mi ngi taxaw si côté yëpp mm-hmm. te dañuy déggante te tamit lépp loo xamante ne da koy def man de dama si laaj soxla te ni mu miinee njaboot gi nii sax miinee ma ko man te foo si déggante si moom nga yaakaar ni moom la gën a amal relation donc loolu sant yàlla la et di wax ne rek ñun bu leen xaar si dara muy gàmmu annuel beeg muy lu ko mante xew mm-hmm. lépp loo xamante ne yaakaar ngeen mm-hmm. lu bees si bi war na mën a déplacé wu ñoom mm-hmm. bu leen si sikki sàkk parce que li ma koy wax loolu lu ma gëm la nekkatul ay affaire de liggéeyal ma fay la c'est une famille parce que gis nañ booy buñ fa demee ni ngeen leen di taxaw ni ngeen leen di jàppale loolu moom mooy yoon parce que tey bu ñu bëggee xaalis ma nañ ko feneen mais pas ci diine ji mhm. diine ji luñ ci mën a porté mhm. ñun suñu kii mhm. te ku boo wax lu am moo ñëw mais man man maa waroon ñëw personnellement ñoom ñi xam na li may wax dama dem ba dernière minute sibiru bi jàpp na tëdd naa pratiquement deux semaines yoo xamante ne jiw mais loolu yàlla moom moo ko tuddee noonu dëkk naa ne kon am na ñeneen ñu waroon ñëw gën jottali ñu sëriñ bi aussi que ñun bég nañ lool. incha allah bég nañ lool lool te incha allah. Mm-hmm. fa ñu jëm moom mooy gën a sori. parce que dinañ ko wan a gën a préparé. Mm-hmm. gën a également gën a si def moyens yi war. Mm-hmm. incha allah pour que adduna bi yëpp xam effectivement li ñuy def foofu sa Boucher. incha allah gaamu ànd yàlla maa ngi koy maa ngi koy wax sànq ñii njaboot bi biñ demee ba foofu. parce que day baax ñu koy neexali biñ demee foofu. premier branchement caméra bi caméra bi dafa yàqu. caméra bi dafa yàqu ñu ngi nii. caméra boobu ça coûte environ huit cent à neuf cent mille. mais pourtant seen xarañte. ak bëgg bi leen yàlla bëgg liggéey na ba pare te kenn xamul ne caméra yàqu. comprendre maanaam sutura suñu borom la amaana tey bu doon si caaxaan la ñuy dem wala leneen mm-hmm. yàlla du leen may xarañte boobu mm-hmm. ba ñu mën a liggéey jox nit ñi image lu war mm-hmm. pour que ñu man a kii comme man fi laay toog lépp damay toog di seetaan lépp pour xool lan mooy faa yi lan mooy défaut yi parce que yaakaar naa ne kóolute bi ak fa ñu na mën a gën a allah du ma du ma du ma téye parce que sëriñ bi comme ni nga ko waxee dama war a delluwaat eh, xaw ngeen fi yàgg mais jàpp jàppaleen mi daal ñun suñu xol sedd na lool suñu xel sedd na lool te fi ñu jëm incha allah moom mooy gën a yaatu bu leen ñu xaar si dara lépp lu leen yaakaar ne aussi daara ji war ngeen ko mën a jàllale sur le CV même à distance mën nañ leen ko defal on est open pour lépp donc di leen santaat bu baax di leen gërëm di leen vraiment euh, waaw di di di rafet naa. ñoo leen ñoo leen fii waa gën a